salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu mbokk yi seetaan di wax ci ndigalu ki nga xam ne mooy xalifa alaaji Mouhamadou Moustapha Sarr ñu koy wax alaaji Kabir Sarr di wax tamit ci ndigalu ay rakam mooy Cheikh Ahmed Tijani Cheikh Omar ak suñu pap di imaam Babacar Sarr ak ñi topp ci seen ginnaaw yëpp di wax tamit ci suñu ndigalu président muy alaaji Ibrahima Ndoye

yàlla def incha allah démb bi mu jàllee lu jiitu ñuy xadara juma def nañ fi ay plateau ànd ak njaboot gi ak taalibe yi def xadaratul juma bi loolu jàllee yi tamit ñu defaat yeneen plateau ci guddi gi tey bi ñu xëyee ci suba gi daanaka programme yi dañ ko jumelé woon benn bi mu ngi doon nekk ci wàllu kaamil yi ak ñiy werd beneen parle bi mooy journée médicale bi nga xam ne moom lañ taxawoo te moom lay wax toujours ne mbiru alaaji Moustapha ni mu fonke woon doomu aadama yi ak ni mu nekkoon nit koo xam ne dafa bëgg maye ak jariñ doomu aadama yi moom la ko yàlla wuyal ci bësam bi ndax lan boo xoolee gan yi fi ñëw ñëpp yàlla ak ñuy suturaal ñu ngi leen di teral waaye tamit lim gënoon a fonk muy alxuraan tey ci suba ba bi ñu jullitu tisbaar borom kaamil yi ñu ngi jàng boo xoolee ci jàkka ji tamit beneen fànn wi lim gënoon a bëgg di wérd ak jaamu yàlla ba bi tisbaar di jot nit ñaa ngi wérd waaye tamit ni mu bëggoon di jariñ nit ñi moo tax indi nañ fi ay médecin ñu consulter nit ñi ni ñu gis fii ci Guinguinéo ëpp na trois 300 personnes te ñoom ñëpp consultation gratuite la te ñoom ñëpp tamit jox nañ leen ay garab ndax taxawu ko ci bés bi mu ndax moom moo bëggoon ko dimbali doomu aadama léegi nii la ñuy doog a pare ci beneen plateau bu ñu doon def léegi nii te loolu li ko jiitu mooy cérémonie officielle bi nga xam ne suñu papa di suñu xalif alhaji Mouhamadou Kabir Sarr yàlla na fi yàgg te wér moom moo ko présidé moo ko Cheikh Ahmed Tidiane ak njaboot gi yëpp kon fii ñu toll ñi ngi waaj a mal li nga xam ne moom mooy gàmm gi nga xam ne moom mooy clôturer lii di 39e édition wu ziaru alhaji Mouhamadou Moustapha Sarr di gërëm ñëpp nag di sant ñëpp képp ku ci jàpp moo xam lu néew la wala mu bëri yàlla na yàlla fulandi sa mën-mën te yokk tamit sa am-am ci barke rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bu ma limee damay juum ndax ñi ci jàpp bëri na waaye li may tëjee daal mooy képp ku ci def sa alal képp ku ci def sa doole képp ku ci def sa xam-xam lu rafet yal na la yàlla fay ci barke Alaaji Moustapha Sarr loolu lañu amoon lu ñuy wax ci organisation bi delluwaat di santaat yàlla di ñaan suñu bàyyi yàlla nañ fi yàgg di ñaan tamit suñu président bii ak suñu présidente bii ma séq yàlla na leen fi yàgg yàlla yàggal ñu yàgg jiite ñun président commission organisation nous ay ndigal lañuy xaar nous ñom ñoy suñu kilifa ñom tamit ndigal lañuy xaar ñu nous ko ci suñu comme ça ñu appliquer di exécuter wa fi qawli haza aqulu lakum alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.